extrait sax laa ko def li nga njëkk nga génnee gis nga dressage bi kontaan nañ waaw kontaan naa parce que balaa sëñ bee génne il faut ma xool ndax ñu def na wala normal lu ci normal ma corrigé ko parce que sëñ bi su waree génn dafa war fekk lépp nekk en règle waa loolu moo tax ma génnoon pour xool. mais li ñu gis yaay ren dafa ñu xaw a bëri woon. mais looloo jaadu màggal innové ñun màggal sëñ Bamba gi daf ñoo jaral lu ñu am dañ ko def. daf ñu jaral lu ñu ci def ñi démb ba léegi gisuñu la mais fi nga fël nii daa bett ñu bari. waaw damaa def lu yem rek waaw dama def lu bernde yi daal lañ gën a fulaal tey bernde yi lekk yi naan yi wàccee kaamil jàng xasida waxtaan ci Sëñ Tuubaa. li tax nga def ko surprise nii ren. bàyyi ba tay rek lépp ah, chaque année ak fooy génn démb dama doon jàpp ci dressage ah, ko xam ah. damay bëgg ñu koy def comme lu jox kon dañ ko war comme mu ko bëggee loolu kon la nga ma waxoon daaw moo del si ne ma daa man njaboot dafa man ay àndam suñu askiateur lu mu am da koy joxe fukki dërëm ak million la yemale lu mu am da koy joxe barke Serigne Touba man du waxantu ñi ma xam-xam ne man du waxantu te dafa feeñ ci man sax ndax looy wax daa war a fekk mu feeñ ci yow man xëyuma gontuma man lu ma sama ci karam ko jox damay neloo ba 5 heures su ma yeewoo faj soxla kon man ma fayam. sa doom yi sa rakk yi yi sëy ci conseil. ci conseil mooy déggal seen borom kër topp leen ci liñ bëgg parce que góor boo toppee ci liñ mu topp la ci nga bëgg man sama borom kër dama ko topp ci liñ bëgg lu mu bëgg laa bëgg lu ko ku mere sama jëkkër ma mere la. Ah du ma lijjanti sax ku mu joteel ndax moom ku joteel yaa ko tooñ. conséquence bi yi bari ñàkk dégg ndigal lay doon. waaw ñàkk dégg ndigal am na ki soo ndax góor boo ko déggalee da lay nangul. mais lan mooy indi papa maanaam benn dañu question lan moo sama xarit la xam nga sëy bala moo neex nga nekk ay xarit kii dafa nekk sama xarit nekk sama complice kii bu génnee dem liggéey sax day mel ne ko voyage dana dañuy xëy wax téléphone ba ngoon ba muy duggaat ci kër gi loolu complicité la. Hmm. salaamaaleykum wa rahmatulah. balaa ci kanam kon waaw. li nga sol nii macha allah. moo ngi coow. sol woo tey nga ñëwaat def nii. non dama def lu simple léegi dama bëgg a xool ba mu normal. après ma ànd ak paa bi génn. mais yaay kañ ngay sol ah, lay doon. ah ban lay doon. non lu yem rek yéen toog leen ngeen xaar rek dama bëgg a xool rek ndax li ngeen def normal na comme ça Pape dooraa mën a génn. ajaratu Ngoye Fall moo noonu di xool caranga yi nga xam war a jox. acca moo ngi noonu bàyyi il faut nga avancer parce que man il aco moo ngi noonu mbokk internet yi ñu topp ko ba léegi dégg ngeen kàddu mi xam ne moom la njëkk a yëkkati tey si journée bi si jour màggal gi nee na sologul te pourtant boo gisee <laughs> li mu sol ni macha takk na oram comme ñu koy defee à chaque fois ñu ko Sénégal yi yëpp xamee Sénégal yi min ko si moom macha allah donc moo ngi noonu acca ak ma borom di ak doxande ma faale mi ci njànge ganima jawaar ak birin ak gëmbal ak bëj sol ko jam jamoro ma càmmiñul binta faale ndey binta faale ngoone mi ci njaasaan ko laatu kaami ngoone ma samba ak jéeri ak faal ciyaasin faal gay bëj sol ma faalaram mbaasin taal jogo ma yaale kumba bur ma kumba cuba jëlal yeeser la man da cëfu njóog yaa attana jël li nga jël li nga yor waaye loolu nag dina ci yow ndax yaay mbokkum Serigne Touba nag yaay mbokkum wala asim du seet yaa ngi noonu di seet yaay ngeen di gis gis leen ko moo ngi ba léegi euh, si ni a xam ne nii à chaque année doo koy def. kii màggal ak jàmm rek ko ñor ak borom këram toppatoo borom këram bëgg mbokkam. léegi kii solu comme ça mën a ubbi bi fi bi. def lu baax laaw la ca déedéet mbax déedéet mën ni ci ko ñor waaw dégg xoolal fii nii lañ ko nii lañ ko organisé wee. ajaratu ngoy fàllu lu nit gën a. sa baay da laa ñaanal sa yaay ñaanal la coow li yaa gisee première nga xam ne ok on def lu simple rek bëgg nit ñi kontaan boo berndee da ngay sol lu set sol lu rafet présenté ko nit ñi pour ñu kontaan baale ma nag baat dafa dee parce que dama sonn waa dama sonn baat dafa dee boo soogee lu neex dangay ngay sol lu rafet lu set lu xeeñ lu neex pour présenté ko nit ñi man dama génn rek pour visiter parce que man balaa sëñ bee génn dama war a visiter xool ndax def nañ ba mu baax ma door a ànd ak sëñ bi génn nag ñu présenté nit ñi affaire bi ñu xéwlu. donc ñu xaar deuxième attaque. waaw xaar leen. waaw dëgg la impression bu métti la si man dafa métti si man du si bëgg a wax sax. parce que su ma ci waxee sama xol day tooy. mel ni ren ku nekk xamoon na sa waaw du ma si a wax billaay su ma sama tooy. mel ni ren da nga dolli cee yokk neex gis euh, bi nga xam ni def nga ko ren ak par rapport ak ren. waa chaque année dañuy innover chaque année dañu mën a yokk dañ koy yokk ndax ñun màggalu sëñ Bamba gi daf ñoo jaral ñun ay murid lañu luñ am ci lañ koy def waaw loolu la. loolu amul benn problème lépp rek màggal gee ñu ko jaral ñun sëñ Bamba daf ñoo jaral luñ am ci màggal màggalu sëñ Bamba gi koy def man barki démb laa jógee ci dëj may tëgg programme mais màggalu sëñ Bamba gi lu mu xëccoo gañe la parce que ren ren ren wootewu ma màggal gi sax ren wootewu ma ren dama ñëw màggal si rek ak ñi nga xam ne samay nit lañ influenceurs yi si bari sax ren woowu ma leen parce que ren damay def lu yem rek ndax dëj bi ma jógee. est pour demaat Dakar defaat lu mel nii comme ni koy defee loolu ñu ngi xool rek ñu ngi xool. merci. ma borom di ak doxande ma faale mu ci njànge. ganima. jawaar ak birin ak gëmbal ak bëj sol ko jam jamono ma caamuñul binta faale ndey binta faale ngoone mu ci Njaasaan. ko laatu kaabi ngoone ma Samba ak Jéeri ak Faal ci Yaasin Faal gay bëj sol ma faalaram mbaasin taal jogo ma yaale kumba bur ma kumba ci bu jëlal yeeser la man da cëf njóog. waaw yaa attana jël li nga jël li nga yor lépp jox waaye loolu nag duñ ci yow ndax yaay mbokkum Serigne Touba nag yaay mbokkum. walaay ak di seet yaay ngeen di gis gis leen ko moo ngi ba léegi euh, si ni nga xam ne nii à chaque année doo koy def. ki màggal ak gàmm rek a ko ñor neexul ak borom këram toppatoo borom këram ba gi mbokkam. léegi kii dañu xaar nga solu comme ça ñu mën a ubbi bi fi bi. koy def lu baax laaw la ca déedéet mbax déedéet rek ko ko mën ni ko ñor waaw waaw. jéeg xool fii nii lañ ko nii lañ ko organisé wee.